jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci bawal info point net mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu tey nag ñu fas yéene seq waxtaan ak Serigne Modou Abi Mbacké de responsable politique daaru Mouhty élection locale yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ci janvier 2022 bëri na ci Sénégal ñoo xam ne déclaré nañ seen candidature mu mel ni tamit Darou Mouhty commune Darou Mouhty commune la boo xam ne tamit am na ñu bari njort nañu ne candidat la ñuy nekk Serigne Modou Abi Mbacké mi ñuy waxtaanal tey nag moom nee na candidat la ci mairie bu Darou Mouhty Serigne bi loolu nit ñi di laam-laame naan candidat nga ndax mën ko koo euh, mën nga ko dëggal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Abdou Khadir maa ngi lay bu baax di nuyu téléspectateurs yëpp. waaw loolu nga wax mën naa ko dëggal candidat la maire bu Darou Mouhty. te dara du ci génne. sama kenn gisuma kenn kuy yàlla bind kenn. koo xam ne mën na maa tey doon candidat bu daaru mussi léegi fan nga teg na yow candidat nga. fan laa ko teg gis daaru musi am na ñoo xam ne tey bi ñu génnee àdduna def na vingt ans wala trente ans boo leen yeewoon tey ni leen daaru musi fii ngeen ko bàyyi woon dara jóge wu fa fa ma ko teg mooy daaru musi yaakaar naa bu nee deuxième capitale mouridisme li aju ci daaru mussi quarante kilomètres carré li aju ci daaru musi ci mbooloo li aju ci daaru nga xam ne tey buñ nee Touba rek Darou si nga ciy teg ñu seetaan tey mu si ba nga xam ne tey jox nañ ko mairie boo xam ne tey yow mii di ma wax a yow su ma nee la maire Louga nu mu tudd. Moustapha Diop. maire Kébémer nu mu tudd. Lamine Thiam. maire nu mu tudd. Abdou Mbacke Ndaw. maire Darou Moussi nu mu tudd. maire Darou Moussi. waaw laaj naa la ko. waaw mi ngi noonu maire Darou Moussi yow mi may laaj yow même journaliste xamoo ko ak dayo bi daaru Darou si am deuxième capitale mu nga xam ne foo tuddee. Touba Daaru mussi nga ciy teg ñu dem ba yow yow yow nga xam ne journaliste boo xam ne bu mag nga yow xamoo meeru Daaru Musi kooku yaakaar naa tey te gis nañ ci réew mi képp lépp maire bi nekk ci Sénégal def sa gox dara lu mu néew néew néew askan wi boo leen laajee ndax xam nga meeru diw dañ naan na xam naa ko rawatin dëkk bu toll Daaru mussi ñu dénk ko maire boo xam ne tey koo ko laaj ci askan wi daan la xaw ma ko kooku man danaa jug di doomu Daaru mussi xam li ma xam dëkk Daaru Musi màgge fa yaroo fa kenn ëppale fa ma toog di seetaan te man a gis loo xam ne man mën naa koo jàppale Darou Moussi ma toog di seetaan du ko def. kon dangeen ngeen da am déception ci maire bi. dama am déception bu mag a mag ci maire daaru mussi te dama yàgg am déception ci maire yi fi jaar tamit ndax nag mënuñu bàyyi Darou mussi ñu def ko benn gàttu bu kii lekkee genn wàll kii lekk genn wàll kii ñëwaat lekk genn wàll kii loolu moo fi war a jeex daaru mussi dafa am ay cadre yoo xam ne tey ma xamal la ko doomi soxna yu fa nekk bari xam jàng ba war a xam la ñu war a xam lépp amul benn yoon boo xam ne appliqué nañ ci maire bi wala lenn loo xam ne boole nañ ci mair bi ne lii war nañ ko fee liggéey te da am na benn association bu fa xew boo xam ne tey biñ ko taxawee ne deful un an. Hmm. muy takk defar daaru. li mu réalisé ci année bi képp képp cinq ans yi maire bi réalisé wu ko. waaw mais mais mais sëñ Modou Habib même bu dut euh, maire bi wala maire bi gis nañ ne euh, amoon na ñaari doomi daaru muxti yoo xam ne. doon nañu siéger ci conseil des ministres jamonoy Abdoulaye Wade euh, ku ci mel ni Modou Diagne Fada ak euh, Thierno Lo euh, ñu xanaa doone ma defuñu dara Daaru Muxti. dama ne la loolu tey yaakaar naa côté santé dëkk bu nekk waroon naa am jafe-jafe jooju moom des Daaru Muxti ndax nag daaru benn hôpital la am. hôpital bi sax 300 ci ginnaaw da nga fa daan dem diggante bi ngay jéggee sax pour dugg ci hôpital bi doo mën a dem bu nawet jotee ndax foofu da daan taa ba fees dell ak ndox. jafe-jafe boobu bépp ñu dund ko kon yaakaar naa tey buñ naan tey kii ñi ngi koy xaaraat amul benn ndombal tànk ñu koy xaaraat mu defar daaru kon yaakaar naa daaru defaroogul ki nga xam ne bi nga xamee ne am nga ndombal tànk am doole ja nga war a am jëpp nga xam ne tey jamonoy jamonoy Abdoulaye yow nekkoon nga fi troisième position parce que bu ne góor gi ne ngóor si hmm. moom nga ciy tegaat kooku yaakaar naa boo defee wu daaru musi ba heure bii nga xam ne amatoo benn ndombal tànk su dëgër soo xam ne war nga ci mën a sukkandiku defal daaru musi kon yaakaar naa daaru musi defaroo ko kon kon euh, ma la déggee mooy Modou Diagne Fada mi nga xam ne nekkoon na ministre ñu dénk wàllum wér yaram gi bu dee jamono jooju la mënutoon a def lu extraordinaire daaru muxti rawatinaa jamono ji nga xamante ni tey nekkul sax si conseil des ministres waaw loolu loolu yaa ko waxal sa bopp leer na parce que nag am na loo xam ne sénégal yi dof lu ñu a jàpp ne yow mi yor ngam xel di xalaat am na loo xam ne tey soo ko mënoon tey li ma naan Abdoulaye Wade bi mu nekkee président li mu mënoon bu bi mu bi mu bi mu wàccee doonatul président mënu ko. le président Macky sàll mii lii mu man mii tey yàlla na yéex mais bu wàccoon doon du ñàkk doon président mënatu ko. kon damaa yaakaar ne bu ñu la nommee ministre jox la portefeuille nga war a man lépp du dindi bokk fa ñuy nase yaakaar naa sab dëkk gën a ginnaaw fa ñu nase kooku yaakaar naa boo demee ba jugee fa ñuy nase boo taxawee ne da ngay defaraat dëkk foofu yaakaar naa ay naxaate mënu ko weesu. kon daal yow est-ce que tamit tey euh, jàpp nga ne tey Daaru Muxti ndaw yi Daaru Muxti pare nañ pour accompagner la. loolu daal maa ngi lancer appel rawatina ndax dama gis yu taxaw Daaru Muxti yoo xam ne vraiment dama leen xool ba mu yàgg sama xol dafay sedd lu mel ne takku defar daaru parce que takku defar daaru biñ koy taxawal état jàppale leen un franc ñoo doon dajale seen i téeméer ak seen i mille franc ba mu bari ñu xool tey dañuy dem ci kër kër nit. koo xam ne tey dañuy fekk bu daan taw ci mbedd mi lay fanaan buñ xoolee xam ne kii kër war nañ ko mën a jàppale ñu dem songandoo ko te duñ ko tàggu ba yaakaar naa moment bii may wax ak yow xaw ma huit maison xaw ma neuf maison yoo xam ne takku defal daaru moo ko tax benn dërëmu état demu ci ñoo def seen propre moyen def ko kon kooku te ñoom un bii dama ne la un an yi nga mën a xool ñu réaliser ko daaru musi maire bi defu ko ko li la ca des mooy jëmbatub garab ku ne xam ne maire yi ko war a jiite ànd kook état takku defar daaru bussi googu nga gis tey garab yan fa jote jëmba jëmba sukkus néew sax ñoom ñoo ko taxawal kon ñooñu ñu ngi leen lancé appel di lancé appel senesu daaru mussi di lancé appel kilifa diine yi nga xam ne ba jàng jotee dañoo dem jàng di boroomi xam-xam ñu ginnaawal leen musu ñu leen boole ci dara amul benn kenn ku ci jàng sax ba yor seen diplôme ñëw ña nekkoon nga xam ne seen loxo jote na fu ne dafa mel na ñoom ñu nag leen moo leen gënal luñ mën a am te ñoom ma gis naa fa ñoo xam dañu jàng ba yor seen diplôme adhéré woon ci ay parti yor seeni CV jox ko ay nit pour ñu lancé ko pour ñu mën leen a jàppale mais tey jàpp nañ leen ne ñoom bu ñu leen jàppalee rek seen poste boobu ñu nekk ñooñu daan seen xel dina ci nekk boo waral na daanaka nag googu lañ la nag loolu nag moo war a jeex daaru musi kon maa ngi lancé appel senes bépp ñu jug defandoo wenn say xeex lii fa nekk mu jugee fa. maanaam daaru daal amul yenn infrastructure jàpp nga ne daal avancement bi fa waroon a am amu fa. amu fa daaru musi moment bi amuñu ku leen xeexal. amuñu ku leen xeexal amuñu ku leen jooyatul ci dara. même ñi ma la wax nii ba ñu nekk ci nguur defuñu fa lu bari. dama ne la dama ne la defuñu fa dara dama la wax yow mii tey ñu ànd dem daaru si nga def tournée amul luñ fa def dara dara loo xam ne tey mën nga sukkandiku ñu ne kii bi mu nekkee pouvoir def na lii. tey boo gisee fu mel ne ba Ngom wala nga gis keneen ak keneen bu ñuy demee seenu dëkk ñu leen di sargal lañ fa def moo ko waral mais ñii ñemewuñoo taxaw daaru musi naan ñu ngi woo benn personne ñun dañuy sonn dañu maar. nañu taxaw fas yéene jàppante doon benn senes bi laay waxal nag ñi nga xam ne ñoo am 30 ans jëm kaw ak mag ñi nga xam ne tey xam nañ li ñu bëgg parce que nag Darou Mousty fii mu nekk ñu ndaw ñu ñoo mën a tàkku génn ko fi. d'accord léegi euh, tey euh, yow yaa ngi politique di jàppale président Macky Sall euh, tey liste benn bokk yaakaar ci commune bu Darou Mousty su doon tey par tey benn bokk yaakaar wala président Macky Sall dafa investir. Modou Diagne Fada wala Thierno Lo walla keneen ak keneen na topp leen ci ginnaawam yow boobaa lan mooy nekk sa position. li nekk sama position lenn la mooy li ma la wax léegi. candidat man daal candidat la loolu daal moom candidat la xam naa ni kandidaa la ndax nag mënuma bàyyi gis sama dëkk ay nit yor ko jëmee ko fenn ma xam fan ko jëmee ma ci ànd ak ñoom duma ko def. xëy na nag ak lu mën a xew man damay doon candidat nee naa la bu ma doon am benn voix bi nga xam ne man maa koy wotal sama bopp sax damay doon kan am na loo xam ne dootuñu ko seetaan tey dootuñu ko seetaan ëllëg. waaw ah, mais est-ce que tamit sëñ bi du li euh, euh, yenn euh, association wala ñi nekk Daaru Moti ci réseaux sociaux yi di wax di déclarer sa candidature ñeen ñi di si jubilé ñenn ñi di ko def estati est-ce que du loolu engouement boobu noonu moo tax nga bëgg a continuer da nga nekk candidat. dama ne naqar bi ma jàpp man dama xam doomu Daaru Musi xam seen volonté xam seen mën a jàmbaare xam seen góorgóorlu ndax nag fit ci borom daaru mus si la yem kuy am fit ba egg si carul da ngay dëpp kon damaa xam ay taalibeem ñoom volonté bi ñu am ak may dem bitim réew parce que nag tooguma Sénégal xëy xëy rek ni damay doon candidat de yàlla xam na ne ñii nga xam ne ñu ngi doon candidat li ma def tournée ci àll bi ñoom kenn mësu ko faa def ndax Italie amul dëkk bi ma fa demul amul dëkk bu ma fa tegul sama tànk xool waa Daaru Muxti xam seenu njàmbaare xam seenu pësteef xam la ñuy dajale di ko def ngir Daaru Muxti yaakaar naa boo leen xool Sénégal dëkk yi ëpp ay immigré Daaru musi da nga ko ciy boole bu jëlul première mën naa jël deuxième man loolu lu ma leer naññ la kon ñooñu ay jàmbaar lañ Daaru musi lu ndaw moo ko teel jàll parce que nag dafa bari ay jàmbaar bari ay bañkat bari ay liggéeykat waaw dafa bari torop kon nag yaakaar naa tey bu ñu bokkee ñun gis loolu gis walante boobu ñu am gis li leen dëkk bi jaral ndax man xam naa ni tey yii kere takku defar daaru musi li ci ëpp bitim réew la ñu nekk ma gis walante bi leen cerno jaral. ñu ko joxe jàppale la non pare wuñ déedéet li may wax mooy waxuma ne pare kenn pare na pour jàppale ma man dama lancer sama dama lancer appel. woo non mais bala ngaa lancer appel bi nii gis nañ ne ci réseaux sociaux yi euh, gis nañ ne am na ñoo xam ne ñoo ngi wax sa candidat di ko soutenir est-ce que nekkoo candidat réseaux sociaux yi aussi. non non non non rek candidat réseaux sociaux amul man dama dama ne la mbir mi ca kanam la nekk dinañ xam candidat réseaux sociaux ak ñu dul candidat réseaux parce que sénégalais ñu de. sénégalais yi ñu wàcc ci dëkk bi tël tël dajale yi loolu yor nit ñi ñun dañ leen di wax lu leer ak nañ. mais est am nga programme tey boo jiite woon mairie bi. bari na programme bi mu am bari na te incha allah su ma demee ba taxawal war a taxawal sama candidat incha allah dinaa leeral programme bi nga xam ne tey moom lañ ko fas yéenee taxawal man nag incha allah képp ku ñu war a seet ndaw loo xam ne yam nañ bëgg-bëgg bokk xalaat dina la seet waxtaan ak yow. xool nu ñuy def ba daaru mu génn ci loxo yi mu nekk ndax nag suñu waajur yi ak suñu maam yi seen jaan wàcc na ndax lañ war a def lépp def nañ ko ba xeex jotee xeex nañ ñun nag bu nekkee ay ndaw bëgg a yaafus ba lii ñu war a xeex duñ ko xeex bu yàggee la sëñ Abdou Khoudoss waxoon rek laa lay wax mooy mujj poussé bu mu réer gàcc la. waaw mais Darou Mouhty tamit dëkku kilifa la est-ce que kilifa ya nekk foofu duñ la bàyyiloo. waaw kilifa yi moom xam nga euh, dama yaakaar ne tey boo jëmee ci lu baax kenn du la ko aay li bon kay mooy jëm ci lu bon te yaakaar naa xool sab dëkk xam ne tey war ngaa mën a bokk ci ña ñay laaj ndax nag ña yor mairie ba gisuma leen lu du expérience du connaissance du lijjanti benn kenn ñun dëkk maire ba nii bu ñu àndoon ñëw ndakaaru gi mën naa fee lijjanti loo xam ne moom mënu fee lijjanti genn wàll gi bu ñu àndoon dem bitim réew mën naa faa wut partenariat yoo xam ne moom moom mënu ko wut ndax maire boo xam ne dénk nañ la ko pendant cinq ans benn yoon laa mas a gis nga déplacé wu dem Italie ñaaraatul ñaaraatul. jërëjëf euh, Serigne Modou Habib. jërëjëf maa ngi leen nuyu di leen sant.